dañoo am ay euh, nit ñi nga xam ne dañoo en tout cas euh, jóg wetu Keñaba euh, amoon yéene donc seen milice bi ñu jël sous contrôle suñu partie territoire boobu yemuñu foofu aussi ñu nekk di attaqué ay suñuy unité ak suñu yenn détachement yi doon opérer ci zone bi waaye bi ko force yi yégee ba kilifa yi jël ay ndogal véritablement donc ripost bi am na riposte bi permettre na d' abord ñu repousser leen deuxièmement donc également am na ay euh, nit ñi nga xam ne ci ñoom la ñu far ñu bëri ñi nga xam ne teg nañ leen loxo waxtu bi suñu côté it am na tuuti yu gaañu loolu mënul ñàkk mais ñooñu ak suñu organisation évacué nañ leen au niveau ci centre médical bi ñu def fii ci aéroport Tambacounda seen prise en charge inquiété wul à aucun niveau te jarul ñu leen di évacuer véritablement vers Dakar nous teg ci aussi que ennemi bi ni nous ma ko rendre compte ku pare woon la parce que déjà démb li mu def que tontu ko tey dafa xëyaat bëgg jël ñaari pont yi nga xam ne moom permettre nga dugg biir Kidira Kéniéba donc amoon yéene aussi attaqué commissariat spécial bu Kidira euh, am également ambition pour nous attaquer Goudiri loolu yëpp euh, biñ ko xamee euh, dispositif bi nga xam autorité militaire militaires yi déployé nañ ko tax na ñu mun leen repousser man naa wax fi mu nekk nii que ñaari pont yi ñu yéene woon jël pour ñoom ñu mun a euh, keña ba seen yéene boobu antuwul parce que forces armées yi forces de défense et de sécurité jël nañu pont yooyu ba sécuriser ko yéene biñu amone aussi pour enlever donc commandant brigade Kidira ak sous-préfet bi fa euh, ba ak sous-préfet bi fa nek antuwul ñooñu ñoo continuer sécuriser nañ len ñu continuer di def liguey bi nga xam ne mo war ci ñom enfin véritablement donc aussi euh, ñoo ngi jàpp ne que liguey bi dina konné ak li wara joggé Dakar so watul fi ak quelque temps euh, ñu déggati ni ensuite ñu gëna fagarou pour protéger nos frontière. La partie est euh, fait l'objet euh, de, plusieurs attaques. Hier déjà, plusieurs euh, de nos unités et détachements ont été attaqués par des éléments, en tout cas inconnus. Et aujourd'hui le 20, ça c'est un peu compliqué avec une volonté de prise de la brigade de Kenyaba mais également euh, une prise d'otage qui concernerait le commandant de brigade, le sous-préfet de Kenyaba et un certain nombre d'autorités religieuses. Je voudrais dire que c'est une situation, c'est vrai, confuse, mais elle est sous contrôle, puisque nos forces euh, se sont engagées depuis hier pour d'abord euh, neutraliser en tout cas les ennemis et en tout cas sécuriser cette zone. Ce qui nous ressort du centre d'opération euh, indique qu'ils n'ont pas pu prendre d'abord euh, la sous-préfecture de Kenyaba. Deuxièmement, leur volonté de